salaamaaleykum mbokki Sénégal man inspecteur Ndoye baan maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal gàmmu jàmm may ñaan kilifa diine yi kilifa aada yi képp koo xam ne da ngay porte ci gàmmu gi ñu jëm képp koo xam ne da ngay tàntal ku tedd ki rek ñu lay ñaan nga jël thème bi nga def ko tem pour mën a jàppale sunu askan bi mbirum góor jigéen yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi di yàq dëkk bi mu ngi yàq dëkk bi dangereusement kilifa diine yi war a xam loolu jël mbir mi def ko tem fanaane koo waxtaane ñaax jeunes yi xamal leen ni fii Sénégal gii du dëkk góor jigéen dëkku góor la ñi nga xam ne dañoo penché wu jëm ci yoon woowu ñu teel a dëkk xam ne affaire bi du foofu wax ak jeunes yi nga xam ne tamit dañuy jéem a jël gaal di dem bitim réew loolu du solution toog ci réew mi tekkee ci réew bi ci kaw nga gëm sa bopp jeune da ngay gëm sa bopp góor da gëm sa bopp jigéen da gëm sa bopp bëgg sa réew toog tekki nekk góor nag la wax xeex góor jigéen fii ci Sénégal fii góor jigéen du fi naane ñeex message bi nag képp koo xam da ngay kilifa diine rek maa ngi la koy lancé pour gàmmu gi ngeen def spécial thème bi xeex góor jigéen fii ci Sénégal jërë ngeen jëf.